dem na xolom am fani fani fani fani do a cha cha fani fani fani fani fani do a cha cha ñu ngi leen di dalal ak jàmm fii ci sunu koñ di leen wax na yéen moom yaakaar naa mënoon ngeen a bañ a campagne ndax bi ngeen ñëwee fii ci HLM 2 la seen soxla faju ndaxte waa HLM 2 ndaxte waa HLM 2 yaakaar naa ñooy faj aajo yi ñooy faj soxla yi ndaxte lépp fii lay amee lépp fii lay xewee ak ñun rek dara du yomb ndax dañuy fal premier tour ñu leen di dalal seen xel di leen wax ne bu ngeen ñu defalee li ñu bëgg jàpp naa ne yéen moom premier tour rek ngeen a gagné ndaxte fii ñëpp am carte ñi taxaw fii ñëpp am carte te premier tour lañu ñu ñu leen wax ne ko yéen moom gagné ngeen ba pare. leen wax ni leen xëyul xëy rek taxaw ni damay jàppale mag sal déedéet dafay yëngu ci politique di dox ba gis ni mag Sall mi ngi liggéeyal senegal loo xam ni rawatina dëkkub maamam bii di Touba kon nag jot na mu ànd ak mag Sall jàppale ko ba ngir yéeneem ji mu am ngir liggéeyal ko Serigne Touba ci dëkk bi. mu ànd ko ak moom bokk ci ñi koy def ak moom ku ne xam na ni dafa am loo xam ne dafa njëkkoon ci dëkk bi mooy biir Daaru Xuddoos li commencé station Daaru Xuddoos bi ba ngay wër jumaa ji ku fi mas a jaar nawet dangay ngay mag ko ñëw fi eh, leen kanaal yooyu sax gis naa biñ koy gas mag ñi naan fii luñ fiy suul ndax nitay jaar ci biir di dox di dem waaye boobu de dëkk bii di dëkkub Serigne Touba bi te jege jumaa ji la Macky Sall ni ndox muy taw di taa di tilim duutu fi taa di jege Serigne Bamba mu jël ko yóbbu loolu yëpp mu def ko. sama mbooloo mii nag ndax mosuñu ma tooñ toxal mosuñu ma ni maam say mosuñu ma ni dara woon na Serigne Fallou Mbacké bi ma leen ne nan jàppale maam say ñun ma kuy maam say ma leen maam say de fu mu jëm fa laa jëm ndax moo natt samay loxo danoo ànd man ci loolu gëm ko. bëgg le ma ko di toog di xaar maam say maa ngi leen ci sant yéen ñëpp di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax su ma ëbbati koo di sant sama xale yi nag waa asas bi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ndax ñoom lu ñu nekk ñanga ca lu ñuy wax ñanga ca kon nag soxna maam say maa ngi lay ñaan sa barkeb maam ñaari bete bet ndem yow bete bete nga maa ngi lay ñaan sa barkeb maam yàlla nga jël ndam li la 24 ci premier tour ci barkeb sëñ fal li nga xam ne nag am na ba des. mooy Macky Sall muy jigéen di góor di mag di ndaw di Sénégal yëpp kenn ku ne li mu liggéey ci réew mii lu concret la li tubaab di wax lu ñuy teg baaraam kan moo fi def dix mille kilomètres de goudron ci pendant e cent et quelques mois Abdoulaye Wade mi nga xam ne moo fi jógewoon ku ne xam ne liggéey na waaye lu mu liggéeyoon Macky Sall tribal na ko Ablaye Wade lim fi nekk 10 ans 12 12 ans 5000 km de goudron la fi def Macky Sall def na fi 10 000 kilomètres de goudron te benn mandaam eggagul Macky Sall bi mu ñëwee fii fekk na ma fi sëñ Sidi Mokhtar Mbacke maa ngi fi toog ñi ñëpp duñ ma bàyyi ma fenn xam nañ sama digg ak sëñ Sidi Mokhtar ba mu ko waxee na autour aviance bii la bëgg a def Ila Touba daf ko wax ne ko ah lu diis la.

boo xamante ne moom la fi liggéey te ci cinq mille cinq cinq mille la fi def éclairage public ci wàllu lumière ci Touba Mbacké gi ci Sénégal ci fais en peu partout trottoir Sénégal en intérieur de Sénégal kenn ku ne gis na li nga xam moom fi liggéey président Macky Sall a forage la fi def centaine de forage ñoo xam ne amuñu woon ndox dem da bu baax di am kontaan leen di leen gërëm di leen xamal ne ñëw gi moom yàgg nañ ko koo waaj buñ sañoon tamit na fi ñëwee na leen nul nii waaye élection yi diggante bi moo gàtt diggante bi moo xat ne sax sur ki léegi mi ñëw euh, Astou Gueye ñëw wax mi Diagne ñëw wax xam seen taxawaay baax ci parrainage bi kon nag fu mu toll suñu xel ñu ci yéen waaj nag daan wax sax ne ma war a wax lépp sëñ bi wax na ko ak sëñ Gora Diop li leen di wax daal mooy ngeen jàpp nañu baax ba egg suñu jub jëgmal ngeen ñu ngeen jàppale ñu président Macky Sall mën koo gagné premier tour ndax euh, chaque jour muy gagné élection da gagné Touba gàcce ci yoonu Mouride def na ci Touba loo xam ko def ci benn dëkk kon nag li leen ñaan daal mooy euh, le 24 février incha allah euh, balaa di sudee rek na ndam la ñuy président li leen jàmbar yëpp dégg nañ ko nag deel bi xam naa ay la lay ay côté yi premier février dana commencé waat ñu doon déposé ban ban ban ban dépp jox jox ne li ñu déposé woon li ñu ci mën dañ ko def xale itam leen wax ci seen changement bi pour ay ay brouette ay yooyu lépp lu ñu mën tamit nañ ko def jërë ngeen jëf kontaan nañ baax kàttan na leen laaj jërë ngeen